tey kenn xamul daf ne mo non non Fatou ah. Fatou bàyyi leen di di xelum Sénégal yi ngeen di yàq dañoo yàq xel c'est-à-dire ah, xam naa xamante ne doon daal man journaliste Sénégal yi defe naa ne xiyam moom ñi bari ci yéen safar lañu <laughs> def déet waay si si si si ma l'explique Fatou daf ne Ousmane Sonko daf ne yor naa document buy taxal ma mbay ci benn milliard ñu yóbbu ko tribunal est-ce que génne na ko génne na ko wala génnewu ko génnewu kon day fenn mu Mamour Diallo mais yeggul ca procès ba non demul parce que bu demoon am gàccee yu ah, moo bëggul dem. xam nga en matière de diffamation boo joxee preuve boo ko joxee même euh, la la justice avant ñu di leen atte kenn du leen atte hmm. kon day fen woon dara da doon fen ma mbay kii Mamour Diallo bu ne détourné quatre-vingt-quatorze milliards xam naa banque ba xam naa numéro banque ba ba ba àdduna tukki Ousmane Sonko du ko prouver parce que y' a pas de détournement de deux francs CFA par. Mamour Diallo un franc laa la wax. bi ci des mais Ousmane Sonko toog mu ne Sénégal mi ngi banque manque pétrole bi ci géej gi di ko yóbbu bitim réew alors plateforme bi nga xam ne moo war a nekk usine bi tabax sax boobu defaraguñu ko ñu ko dire que ba mu dalee politique valu ci fen sos yàq der ak yéefi na naa nag ma euh, <laughs> maître Diop li ma wax da doon Sonko Sonko lu hmm. maanaam lii nga xam ne moo jox Sonko succès mu ne naa ci dugg man tam def ay révélation bu ko defee yéen journalistes yi te candidat la ah, ah ngeen yéen journalistes yi ngeen ne bu dee surtout les sites xam naa Sénégal TV da bind quoi <laughs> télé Sénégal eh, kawteef. <laughs> maa ngi ne ëpp talaw. <laughs> ëpp talaw. révélation su ko defee nga eh. am buzz. il faut un homme politique liggéeyam. Hmm. du wut buzz. un homme politique du def ay eh, révélation li nga man su ma yoroon loo xam ne dafa dafa jaxasoo dëgg. dama la yow Fatou ne la am document bi gëstu yow boo ko traité en tant que journaliste ñu ngi koy génnee. du bokk ak yow mooy gën a scientifique. du mm. bokk ak un homme politique c'est homme politique. Ah. lenn la ñuy xaar ci moom mu mu génnee xalaatam. ci mm. jafe-jafe askan ak solution yi ak saafara yi mu bëgg a indi. waaye di wuti kaaw téew di wuti xaw ma nu noo waxoon sax. <laughs> buzz ëpp buzz. <laughs> yooyu du liggéey politique maintenant li ma wax nag mooy da doon da doon sonko sonko waaye bu defu ndànk sonko dana gën a dem parce que sonko ko ëpp sonko fexe na moom ba am mbooloom avocat fexe na ba am ay nervi médiatique mooy les chroniqueurs là <laughs> qui font le. <laughs> Baye Moustapha Jaxate am nga jàmm li nga nit li lépp nag offensement de chroniqueur rek laa lay toppe tey offensement de chroniqueur offensement de chroniqueur laa lay toppe na nga def ak coono am nga jàmm Baye Moustapha Jaxate daay doog a yeewu ndékkooguma na nanga def ak coono am nga jàmm gis nga Baye Moustapha Jaxate maanaam yow sa bopp yow lii ngay wax ni gëmoo ko yow Baye Jaxate ci gàttal tey la sax Eh, ndax ma ni tey la 17 nag <laughs> bàyyi procureur day am ligne tey day dugg Ilimix <laughs> tey ngay moy infraction moom lu waaye di wax bisu tey la doon jàmm tey la tey la tey la 16 xaw ma 17 tey bàyyi bàyyi baay bàyyi juge ak bàyyi procureur dañuy yor crédit dañuy nekk dañuy am ligne waaye rek kon di nga dégg musiba sa koppati bii mën ne potub condamné may wax ngay layam lay bi fii naan da ngay révélé yow maanaam yow. yow maanaam yow justice dalaa talul yow yoon moo la talul yow yoon dalaa bërgal dalaa talul mais yow bu la yoon taloon dëgg-dëgg bay bàyyi Moustapha Diakhaté yow chaque jour ñu woo la ndax chaque jour ci def yow diffamation yow moom yaay bàyyi diffamation diffamation ci yow la fekk baax diffamation bu fekkee mooy waxal doomu aadama lu amul ak teg nit ki ak yàq der comme ni nga koy waxee chaque jour déformation nga ni mooy yàq der ak waxal doomu aadama lu amul barke yow mal kulóojul basar bàyyi gis da laa tallu xaw ma da laa tallu da waaye da ngaa rate yow sasaar gi gars yi gis amul ñoom soxla rek parce que da ngaa rate tu es en retard tu es bis bi da la fee bàyyi ngay layam-layami noonu di teg ay révélé maanaam man moom boo bëggee dégg-dëgg man bala bala xaj yi gën lee nit ñi laa pare woon say mbir man bala xaj gën doomu aadama laa pare woon say mbir man ndax bay yow Baye Moustapha a dégg naa ci bàyyi bàyyi nu koy waxatee sax waaye baay boo demee fàtte turam moom it mi rakkam rakkam yi noonu ah na ngeen def ak ci woon Baara Ndiaye bàyyi Baara Njaay laa dégg muy révélé lu garaaw ci Kutiba sa Kutiba Cheikh <laughs> Baara ñëwal naa rafet coono am nga jàmm Njaay Njaay am nga jàmm naka neex may naka Sénégal nag naka tarax la xi politique ah réew maa ngi nii de Baye Moustapha Diakhaté nag moom daa yaakaar ni kenn xamalu ko dara ci réew mi kenn xamalu ko dara ci réew mi man moom tey li muy la 17 xaw ma la 16 moo tax mënu maa révélé waaye kon dinaa révélé naa bàyyi ba weer a gën a sori te mbéy Baye procureur du am du am ilimix waye fim ne ni daa yor liñ pis bu bes la dajji ji <laughs> wax dëgg yàlla moyenne d'infraction ci ngam ngay fanan kon damay baye Cheikh bara rek mu dik iswaru kuti bi dogu kuti bi na nga def ak coono ah wa Baye bara ñewul waaw bàyyil ma wax ko pour sénégalais xam ki may waxaat ngeen jaxati hmm. ni di Moustapha jaxati hmm. mom man na mala laa ci sin touba am xale bu gëna lay rak ci Baara lool ëppul li nga wax. bal ma ci fii hmm. Moustapha jaxati rakam rakkam ju ñuy wax du dafa gaañu rakkam rakkam dafa gaañu fii ci Ndakaaru lan la doon liggéeyee mooy dafa jàng ba am licence am am xam-xam bëgg a liggéey Moustapha mu nangu ko dimbali na ngeen ma déglu bu baax li may wax bi mu ko nanguut a dimbali mu wut am moto di dem ci journal di jël ay journal di dawal moto bi di dem ci journal yi di dugal di verser journal di ko di ko distribuer yàlla dogal genn koor ay 6 heures du matin 7 heures du matin ba ba <laughs> bi nga wax ñu dem denc keroog Moustapha Diakhaté ba ñu fële la wax. dégg euh, bañ demee denc ko ba noppi jëm allié ci fañ koy rëb fañ koy dëjale xam nga bu dencee ci armée la ñu dem ca dëj mhm. Moustapha Diakhaté billaahi wallaahi ba tey tuut tànkam ca dëj mu nekk daa daa di taalu otoom dem ci kër soxnaam su nekk Touba ndogoo fa daa di wuti Dakar parce que waaw bàyyil ma ñëw rek saraka na ko ko la eh, nga bar bàyyi Barthélemy dañ koo tooñ ba tooñ ñett bi ko waaye comme bakkan xas na ca moo xam xam ma day dem ci yoon nangam sangam ndax xaw ma légitime défense boobu bu bakkan xasee faatu man comprendre ma li nga ndax man yoon dara laa ci xamul day leer man xaw ma tus ci yoon. waaye nag boo bëggee dégg-dégg pour leeral la nga comprendre Baye Bar day wuyu ji force reste la à <laughs> force force reste la à waxoon Baye Bar ko wax force reste la à la loi le force reste la donc Baye Bar di wuyu ji ci wa zaahiran wala wa baatiman lu leer laa lay wax. waxna la ko demb dama la koy waxat tay force restera à la loi ya ko fi waxone demb ak barki demb ak barkati demb donc comme force restera à la loi donc il faut layam layami la laxi rakam rakami le problème là c'est pas notre problème c'est toi avec le juge kon yow euh, bàyyi boy du ay taxaw fi nan wey bak dañ ko togn mais comme bakan khasna fat faatu dañu de eh, dama ne force restera à la loi laa wax force restera à la loi force nokk restera à la loi laa lay wax nii bàyyi bar day la day wuyu ji de eh day dem de bar day dem de day dem day dem di nga wéetoo da ngay dem nga taxaw fi di layam layam ak sa koppati baye safa jaxate nan wey comme bakkan xas ji fatu day day wuyu ji force restera à la loi point amul sax virgule force restera à la loi na yon def liggéeyam ci wazairan wala wa batim man waaw na yon def liggéeyam ci wazairan wala wa batim man yeen da ngeen fam ni coono bu mbitti bi ngeen tek bàyyi procureur ak bàyyi juge ña 2019 ba tey bàyyi juge ak bàyyi procureur ñu ci jàmm sonn bay bëgg a dee ngeen fa nit na yombe noonu yéen ñëppay wuy ji man yàgg yàgg ci ngaam ngeen di fanaan bàyyi juge bu yëpp jàllee bàyyi juge ay bàyyi juge mi ngi waaj loo xam ni man bàyyi juge ma noppi sax ma wax diffamation <laughs> gaa da ngay waxi logique sax ñu naan la diffamation na nga def ak coono am nga jàmm mbaa kenn yóbbu la bàyyi gis de mi ngi wàcc poisson d'avril xaw ma poisson décembre <laughs> bàyyi gis li mu nar ñàppay wuy ci wa zairan wala wa baati man muy ku mag ku ndaw ki yéen ñi fi nekk di talax laxe di rayam rayam di lakam lakami defi video di layam layam di waxal doomu aadama luñ deful di len sosal yàgg yàgg ci ngam geeri fanan a propos de bay bartelimi way dañ ko togn merem la tok nge eh force restera à la loi nil ne décide à la loi yi <laughs> ko noqot desi à la loi dama ne nul ne desi à la ko wax français ko wax nul ne desi yoon moom kenn kenn kenn jombul kenn yoon jombul kenn nul ne desi à la loi donc Baye Bar ci wa zahiran ak wa baate man du mu Moustapha Diakhaté toog fii di di ngandal bopp naan wéy yow man père li ma jaaxal ci yow mooy ba nga dalee wax ba tey ba nga dalee wax ba tey ki ngay défendre lijjantiwu la ki ngay défendre lijjantiwu la ki ngay xas lijjantiwu la yow ñun dañoo jàpp ni maanaam yow considéré wuñ la comme yaa ma gën a xam daal waaw yow daal boo bëggee dégg-dëgg bàyyi Moustapha Diakhaté am nga jàmm mbaa kenn yabu la dama ni yow boo bëggee dégg-dëgg peer ñun ñun bu bàyyiwul la xel de bu dee da ngaa yaakaar sa kàddu yi ñu koy dégg yaa nax sa nax sa yàlla doo nga fi nekk boo dee ay waay boo dee yàlla tawal ay bulet Baye Ousmane du bokk nga wax boo dee yàlla tawal ay waay boo dee yàlla doo taw ay solution ba xam ku ko yëg waaye boo dee yàlla tawal di fromage camembert na nga def a coono am nga jàmm dama ni yàllaa la sàkk sàkk ñu xamoo lu ñu xamul barke yow mal kuloo jul xamoo lu ñu xamul ceeb ngay dundé ak ceeb lañuy dundé dundee déggoo ma de fanaanoo bay juge fanano bay procureur fanano bay ali seen yow kay nit la ci yow la fekk bax yow mi liggéey ak état ba jagg état né sama sama vie privée sama walum 3e mandat bu ci wax ha ah, ngay retaxle di <laughs> taxlé ba rëcc nek mom ci plateau yi ñu radja la ah na nga def ak coono fofu kay la nit li yam <laughs> ngay liggéey ak man man la man sama vie privée bu ko laal bu ci dugg bu ci wax ah, nga toog ba mu neex la nekk ci plateau yi questions yi neex rek nga reere sa ndambe toog ci toog ci télé yi ñu layam layam yi ràkkam ràkkam ba rëcc le nag ah <laughs> ñun de rëcc lee guñu <laughs> ñun de rëcc lee guñu de kenn dàq ñu ndax wax lu amul kenn dàq ñu ci postu ndax wax lu amul ñun ban demee ba xam ne lii nii xamuñu ko dañoo bàyyi ndànk ban demee ba xam ne yii xajuñu ci caaxaan yi xajuñu ci dañoo bàyyi ndànk ay ay agent lañ woon impr domaine et bien maîtrisé déggoo ma de bien maîtrisé bañ demee ba xam ne li doxul dañoo bàyyi bàyyi lañ def parce que wax dëgg yàlla yi jaame yàlla lañ dundug lu suñ yoon nekkul na def ak coono na nga def ak coono bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi <laughs> bàyyi Moustapha Diakhaté mbaa kenn yabu la demal bàyyi faro laa la wax yow sa kàddu yi bu dee da nga yaakaar ñu ngi koy déglu yaa ngi nax sa bopp éleveur de éleveur de kuti <laughs> éleveur de kuti kay na def ak coono <laughs> lii de Sénégal rek la am Cheikh Bara Ndiaye nee na xaj bi daa feebar di matu rakk ji feebar rakk ji dee xaj bi dund <laughs> ñu entre rakk ji hôpital ñu entre xaj bu hôpital na def ak coon <laughs> ñoom ñaar yëpp bakkan lan yor de waaye wax dëgg yàlla am na bu gënoon a disponible de <laughs> am na bu gënoon a disponible da ngeen def ak coon léegi nag comme tey le 17 xaw ma le 15 bàyyi procureur ak dañoo yor ligne bi Illimix ku waaye ku yóbbu wax loo xam na ngeen def ak coono waaye kafe gaa ngi këpp sama kaw ku yóbbu wax loo xam na ngeen def ak coono ma ni seetaan leen vidéo bi ndànk nag seetaan leen ko ndànk ndax wuyu ma bàyyi juge daa dugg ligne de mi ngi ak Elimix un mois la weer bii kay boo bëggee dégg-dëgg raay rek di ngeen def ak coono am ngeen jàmm bàyyi juge sama présente encore une fois man la xëri man la xëri raayam raayam raakam raakam mbaa kenn yebu la bàyyi juge bàyyi procureur am ngeen jàmm wuyu ma bàyyi Barthélemy force restera à la loi na yoon def liggéeyam ci wa zahiran wala wa baati man bàyyi Barthélemy yal nga dem tombeeg gis dikkle yal na nga dem tombeeg bàyyi dikk dikkle yal na nga dem tombeeg bàyyi gis xol bi neexul yal na nga dem tombeeg bàyyi gis xëy ñu koy fayee ko bor xool bi naqadi <laughs> te ni ki na soof ci wuyu ji ah, gis nga convocation bu àjjuma convocation bu àjjuma yow da yow balaa daraa xew yow ba wujjee ci ngaam ngay fanaan vendredi samedi dimanche procureur de du liguey lundi day naji xey mardi day jàpp mercredi <laughs> à midi 45 la bay dit na la kay na ngeen def coono en attendant yow nga do nga ñam juróomi fan yo xamantene yaangi ci ñam violon yal nañ ci yalla musal na ngeen def coono am ngeen jàmm bàyyi alkaati respect mana a mani force restera à la loi na yon def liguey ci wa wala wa